asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi suivre Leewtoo TV 100 pour cent lamb comme ni ngeen ko xamee rek saison nag la ñu nekkoon tëj ko ubbi ko ci bisimilah rahmaani rahim tëj ko ci alhamdulilah rabil alamin di waajal beneen saison di ñaan yàlla ubbi ko ci bisimilah rahmaani rahim moom tamit tëjaat ko ci alhamdulilah rabil alamin waajal nag bu ñu ko waxee moom olof dañ ne daas fanaanal promoteur bi nga xam ne nag moo ñu woo fii tey jàmm a si gàmbaam mooy Lay Ndiaye Lay Ndiaye nag li jar a mooy arène nationale bi ñuy tabaxal ci Pikine. mooy promoteur bi fa njëkk a tëgg làmb loolu la yàlla def Sunjata la woon ak kan ak Pape yàlla may fa Sunjata ndam Sunjata moom mu fa tëggoon mu jëkk fa am ndam nag moom la booleeg tey ak kéwél bi nga xam ne écrit Bawol la ne muy grand combat kéwél a ngi nii toog yàgg maar lay njaaye ngoongu ngeen koy gis Sunjata Keita ngi noonu moom tamit kon daal daa mel ni fi mu nekk nii moom ah kii am na ci lu mu jóge daaw digganteem ak Modou Dia ku ne gis na la ca xew kële am na ci lu mu jóge digganteem ak Pape Sène jóge ca teg ci Aliou mu mel ni moom kon taaw 2-0 maanaam ñaari sort yëpp dafa ci génn ak ndam mais dañuy nuyu tam ñi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp ku mel ni suñu confrère Abdoulaye Dembélé bu suñu làmb moom nga xam ne suñu mag la suñu conseil suñu lépp la mais gis nañ fi lewit le grand ménager Saliou Ba entraîneur u Zap bu Pikine ak le grand ménager ki nga xam ne mooy Sawru Fall Sawru bu écrit spécial bi gis ngeen ko Sidi jàmm gën da ciy bëre ak Mamor doomu Faas loolu moom lu nar neex lay doon waaye Mbaye Dieye Faye kenn du ko fàtte ndax ku ne jàmm gën si gàmbaaw sa xel day dem ci moom léegi nag xawma fi ci fan laa war a njëkkee sax non naa dem ci saal ba bële ba pare parce que moom moo yor mel ni mbër mi muy kéwél maa ngi lay ziar waaw Babacar maa ngi lay nuyu di la sant di nuyu waa euh, téléspectateur u Leewtoo TV yëpp di leen ziar am na fu ñu daj dajowoon daaw de ci lu mel nii mhm. nee nañ ñi bokki teen ñooy laxasee goj barina li ñuy laxasoo ay goj maag yow suñu ganaa ngi suñu lépp nga nga yor kéwél tey defe naa da nga am combat boo wara a euh, signé ñi ci digganteem ak suñata waaw waa di félicité ki nga xam ne mooy promoteur bi di Lay njaay di ko ñaanal yàlla li mu bëgg ci combat bi yàlla defal ko ko di ñaan yàlla tamit ñaari mbër yi fekk ko ak jàmm li nga xam ne mooy seen contrat ñu rempli ko di ñaanal sama confrère ki nga xam ne mooy Sóoru Fall xam ne laa jàkkaar di ñaan yàlla may ma ndam ci kanam jël bu am benn werante hmm. am na solo <laughs> Zal mais Zal Zal Zal est yàlla may la ndam parce que lool su ma demee ci rek day gaaw mais yàlla may la ndam hmm. est-ce que suñu tam mi ak bi mu ne am ci moom ndam ni actuellement dina yomb parce que deux victoires la def daaw ah. hmm. waaw soo xoolee deux victoires la tegale mais na nga xool Kewel fu mu jógee ak ñi mu daan ak ñi si njëtt daan lu gën xool ko rek yow. yow kay yaay xool man damay wax. ñu daan ay xale. moom lu mu daan. ay paa. yaa wax lii ma wax lii. la tontu du forox sawru maa ngi lay bëgg. maa lay fay Babacar. wax ji moom jarul muy gudd. yow defe naa suñu tag <laughs> moo fi tax a teew li mu wax leer na nee na ay paa nga daan. waaw d'abord maa ngi leen nii Babacar di nuyu aussi Saliou Ba comme ni mu ko waxee di nuyu aussi ñaari mbër yi eh, muy Sunjat ak euh, Kewal di nuyu aussi promoteur bi. ak staff bi mu àndal yëpp ñoom Ibulaay ñoom Njool euh, di nuy aussi sampe yi fi toog tey mu ko mel ni Mbaye Gueye Faye Male ak Sidi Diamaguène ak Mamour mu war a dajal comme moom ñëwul di nuy staffu lay bépp man nag dama cee toog ñaari xaw ma ñaari boor laay xaw ma ñetti boor euh, ndax man d'abord premier daf ma jël dugal ma ci boppam. loolu ci staff bi d'accord mën naa ci staff mais euh, dama kon ma benn sas beneen bi mooy yor naa ci mbër waaye man naa ne mën naa ne ñaari mbër laa yor. ndax Sunjata mooy sama bër comme ni ko Sall waxee nag dégg naa li wax waaye loolu du ci tontu naa yàgg daan naa yàgg daani paa kéwél nekk suma rakk muy làmb joo xam ni euh, làmb ju neex la ñuy ñaar aussi ñaari xale lañu ñu leen ñaanu yàlla suñu borom rek yàlla defal leen jàmm defal leen tal ñuy ñaari xale yoo xam si làmb dafa am ñoom yaakaar kenn ku ci daam foo jaar parce que Sunjata aussi dafa am na fu mu jóge ba yegg si fii ba war a mën a bëre kéwél kéwél itam am na fu mu jóge moom ba si fii muy ñaari xale di ñaari xale aussi dañoo am ñoom yaakaar ci ñaari côté parce que mbër la ñoo xam benn am nañ ginnaaw am nañu yar li ñu gën a bëgg ci mbër am nañu respect ci ci ci biir te kenn ku ñi xam ne si làmb bu ñëwee mën nañ ni yaaram lañ nii ci kanam nit ñi mais buñ demee biir géew gaynde lañu ah, waaw ñoom ñaar ñëpp hmm. ñoom ñëpp ay gaynde lañ léegi nag euh, nee naa ko xëy la premier bees la comme ni nga ko di ko félicité parce que yàlla def na aussi mu ñëw daaw ubbi lu toll ni arène nationale loolu la Euh, su njotaat yàlla def sama mbër ubbi ko yàlla may ko fa ñu ñaanal yàlla mu jaarat foofu euh, léegi ñu koy félicité ci bi mu ñëwee parce que combat bi tey defe naa combat la xooy bi dafa làqu woon te tey yaakaar naa bu ñu xëyee gis ko ci kii ñu ni su njotaak euh, kéwal taxaw na kenn ku dee ne combat la combat la te yow mii sax yow xam sax yow combat la combat bu neex a neex la sawru macha allah mënu cee wax tey loo xam ne nii lu lu mu ci mënta wax la wala am na ci xam-xam ndax bari na mbir yu mu géewal yow en tan que journaliste en tant que connaisseur ñaar ñi xam nga seen départ ba fi ñu yegg si fii tey mais promoteur bi itam am na loo ñu mën wax si moom Dembélé ñu ngi lay nuyu di la jaar. Euh, di la féliciter si liggéey bu rafet bi ngay def. ak disponibilité bi am na si solo fu ñu la woo nga ñëw loolu mooy pour man reporter euh, di kontaan si promoteur daaw la ñëw def ñaar journée yi am solo ay combat espoir yi am solo mu ñëw nag di confirmer si lancer boobu parce combat bi. combat bu neex a neex nga nii parce que Kéwel gars yi dañuy naan wulli deux mais waa Bawol moom lañ gën a yaakaar pour mu doon seen relève. lu tax lu tax loolu. Euh, taxawaay bi euh, sérieux bi xeex bi mën na ko bëree mën na ko looloo tam mu doon seeni seeni seeni yaakaar ginnaaw tafaatin ak boye bawol bokk na ci nga xamante ni yaakaaru bawol euh, su njata nag doomu jàmm gën am fit gëm boppam daan na sa ñëw lut simple lutte sans frappe di fa bëree kon gëm gëm na ni mën na bëree nekk si gox bi nga xamante ni am nañu yaakaar ci moom ñaari champion la nga xamante ni su njata gis nañu daaw lu mu def deux combats deux victoires ñu bëree jàpp ni euh, ñu mu bëreel ay paala te ñooñu dañoo amoon expérience ba pare indi woon envie de gagner parce que fu ñu jógee la mu ñoo daan leen avec la manière jouer ci expérience gis naa ni malgré tout bëri nag ñoom ci xel te loolu dafa am solo ci mbër euh, kéwal mu jógee ci défaite contre Modja te moo nekkoon favori suñu bëri mais loolu xëy na looloo ko wàññi woon parce que mun nañ la def favori ci combat fekk na xamuloo adversaire bi nga ñëw ni sous-estimé ko mu daan la jumte la bëgg na ko rectifier ci combat bu ñuy jëm nii ndax dina ko réussir dina leer. am na favori. Euh, favori bu ñu ko jëlee si performance yi nu ñu nekkee suñ njata la ñuy jox favori parce que moo jógee si ñaari victoire ku jógee si défaite day ñëw pour relancer carrière donc moom la ñuy jox favori. mais favori bi nga xamante ne am na am na client bu mu. am na salan bu wóor a wóor a na solo nekk fi mu nga Gambie yàgg maar fekk nañ ko keroog Gambia kii ko fi teewal moom si Sidi jàmm gën mi lay bëreel man lay bëgg sëñ bi tur bi. waaw man Pape Gueye la quoi Pape Gueye waaw. ma dëkk fan. Fass Mbao représenté bu école de lutte les Tigres. doomu Fass Mamour waaw man li ma lay laaj lan moo tax Mamour dëkk ci zone bi ba pare di bëri mbiri zone bi bëri door waaw xam nga moom moom moom xëy na moom xelam ci loolu la ko jox quoi moom fi muy gisee mooy. moom nee na ku dul mbëru faas rek day bëre ak moom quoi. waaw ku dul écrit moom day bëre ak moom quoi moom loolu la wax te ñun tamit dañ koy fekk ci loolu. kon moom daa jàpp na mbir mi sport rek la. mbir mi sport la foo la agré quoi ñoo dëkk wax dëgg yàlla foola la agré mënul weesu loolu quoi après bu ñu bëree ba pare dañuy àndaat ci jàmm. moog Sidi mi ku waaw man de damaa jàpp ni moo mën Sidi wax dëgg yàlla fa ko. li nga jàpp yombul. waaw damaa xam damaa xam ki ma nekkal. dama ko xam jàmm gën ni champion la gars yi wax de. champion la wax dëgg yàlla ndax dégg naa ko si ñu bari champion la mais wax dëgg yàlla. Hmm. man xam naa ne ki ma yor moo ko mën. ki moo ko mën waa di profité tuuti ko nga may ma. ci promoteur bi tëgg làmb ji. waaw Lay Ndiaye parce que bi muy sooke lii dama ko fekkee mu toog laaj lan moo tax mbëri fii du ñu bëre ñu ne ko gaa yi ñu leen waa problème promoteur dafa dugg ci loolu pour jàppale leen mais nekkul dafa dugg pour gagner wala leneen bu. am na solo Sidi. yaa dégg wax ji ñoo la mën la wax ginnaaw bu ñu la waaw ziar maa ngi nuyu mbooloo mi toog fii yëpp. waaw dégg naa nag li mu wax. dégg naa ko bu baax nee na Mamour moom moom mooy wax mais Mamour xam na la te comme que nee na. xam na la nu mu la xamee. jarul wax ñun dañoo bëgg a xam nag da ngeen a daje ci parce que yéen a bokk secteur da ngeen a mbëkkante ci mbapat yi wala. xamante nañ xamante nañ xam na ma bu baax. wala da a daje géej. waaw xam na ma daal naa yem foofu. ba wala ci gargamboose secteur yi amul nay gargamboose de. après bu laam combat bi jeexee dinaa la wax li tax ma ne la xam na ma. waaw comme que nee na nag mbëru jàmm ku dul mbëru Fass Mbaaw day bëreeg yow mbëru jàmm gën ak yëpp su paree ci man dootul mbër dugg la wax li da nga ko fiy génne loolu dama ko fi mu neex ko mu naqari ko incha allah foo bëgg foo bëgg. non waxal rek. baa ma yóbbu non fa laa koy yóbbu nag. darkase waaw. am na solo foofu laa koy sànni darkase. kontaan naa di profité nag di nuyu grand bi nii. grand lay parce que li mu def nii yombul. dëkk ci dëkk bi ba pare boole ko di defar dëkk bi comme li ndongoloo ndem si yàlla si doon wax yombul te amaana moom loolu tànk yooyu moo ko tax a jóg jàppale jeunesse bi waaw di profité di woo jàmm gën gi yëpp xam ne combat bi seen combat la rawatina sama koñ jagsaaw de quartier Nassour Laye ñu xam ne combat bi sii de ak Mamor combat Fass la ak jàmm gën. na waaw maa ci woo ñëpp nag. maa ci woo ñëpp. moom day war a tax day tax nit am cër Mbaye Dieye fay mi yaakaar naa ne mbër la champion la mbër maa ngi lay ziar. ñu ziar baax di bëggee ñëpp. di nuyu waa salle bi ñu fi toog ñëpp. tout simplement maa ngi nuyu grand lay comme ni ko waaju waxee rek. waaw wax sa mbaax waaye du yàq sa mbaax dara ñu ngi nuyu tamit suñu yaay nday xadi mi nga xam moom lañ fekk si di jigéen bu mën góor di ji jabaram di ko siyaar bu baax a baax lii mu koy def nii pour mbëru jàmm gën ñoo tax askanam dong moo ko ñor te xam naa ne bu doon recette ci liggéeyam lay yem ndax regg na démb tey soog a ñëw comme su dee def lii rek pour ñun ñoo tax kon mention spéciale. yow ko mujj daan. man maay daan kuy quatre-vingt-quinze. koo bëgg a bëree. ah bari na maa ngi léetoo di xaar gaa yi rek. laaj ma ñaari pour ñu dem. Papa Boy Djiné avance baa ngi fi di ko xaar. ak kan Serigne Ndege ak kan nonguloo dégg naa daa dem daa dem États-Unis moom mënu ma ci wax dara. nonguloo nonguloo nga Gambie. bi Gambie. voilà ko fekk de man. avance yaa ngi fi di leen xaar. kon am na solo armée bu bu ñëwee jël avance bi. Eh? ma jëkkee ci mbëri wala wala wala ma mujjee ci mbëri mbëri sax promoteur bi tëj. waaw naa jëkkee ci mbëri ah. promoteur yi tëj kii mooy dalalaate kon ci moom laay njëkkee moom suñu suñata <laughs> borom ka dama lay gis nga yorob kan booy ñëw làmb jëde ci loone waaw maa ngi sant yàlla Babacar nuyu naa la ba am nga jàmm maa ngi sant yàlla bu baax naka nawet bi nawet baa ngi nii rek ñu fee ngaa bay waaw bay ba tas loo doon bay gerte ak dugub foo ko doon bayee ci àll ba ban àll eh, mbuleem mbuleem mbuleem kon yow saalum mhm. <laughs> neex na mais li may fi may ñëw mooy sa combat parce que combat bi xam naa combat bu làq woon la mais combat bu neex la xam nga xale bi nga jël nii kéwél nii. waaw kéwél xam naa ko manqué seetaan ndax mi ngi def ay preuve am <coughs> kéwél moom xam naa làmb ji kenn dootu ko présenté ndax mi ngi def ay preuve am Zal ba maa ngi ko dégg léegi sax mu ne ma ay xale la daan. suñu ay paa nga daan la wax. mu ne ay paa laa daan moom ay xale la daan dama koy wax rek ne ko moom Boy Niang daan na ko te Boy Niang paa la. ban Boy Niang. Boy Niang école de Balla Gaye waaw daan na ko te kooku paala ah, waaw kooku de daan na kéwél Aliou Mané te na ko wicc te Aliou Mané paala kon bu ma ñëwee daal leen ci ay secondes yooyu amul solo li am solo rek mooy na ñaanal mbërëm rek ñi ñaan yàlla rek yàlla may ñu ndam yéen li leen boole bëri de kon Aliou boole leen wax nga dëgg moom bëri ak Aliou ci ay minutes waaye loolu lépp dara ci làmb mais moom mii est que daan ko yomb na kéwél mii kéwél daan ko yombul ci ñeneen mais man de wax luy bu ma jaawale bul gaa jaawale daan naa ko faral di wax samay reportage loolu lu ne ci yow looy bañ mu jaawale. maa xam dama dama xam li may wax rek. man maa ñi ñi seetaan a bëgg a xam lu ne ci yow looy bañ mu jaawale. xam naa ma koy wax li li may wax xam naa ko dinañ ko dinañ ko dinañ ngénte jasit bu ko mbëtt yéegee bara ko ko wax. ngénte jasit. bu ko mbëtt yéegee bara ko ko wax ndax lépp ndox bi la. waaw ñoo waaw loolu de am na. ndox bi yokk mar benn guux da cee doy. te ndox moo xamul kañ la taay itam dugal ci sa tànk wóorul de. là où je passe je reste trace. yaa waxati yooyu tubaab. maa ngi raam de. raam jëm fan bëgg a dox wala waaxu. gaa ngi naan mënul bëre mënul xeex. mais je sais qui je suis. Hmm. bu arbitre sifflé ba tàqale ñu. bu ñu bàyyantee rek nga xam ne waa jàng yi. yéen ñaar ku dàq bëre. dàquma bëre de. ku dàq bëre laa laaj de. mën na bëre waaye dàq dàquma bëre. yaa ko dàq bëre. fuuf. ku dàq xeex. maa ko dàq xeex maa ko gën a ñeme. képp doole. maa ko ëpp ku gën a doon gune. maa ko gën a nekk xale xam na. kuy daan. maa koy daan ci kàttanu yàlla. gaaw wala yéex. lu mu laaj. dóor mu daan mën naan. waaw ndax dañuy xare ba suñu jotaa ngi. waaw di profité di nuyu sama grand Lay Ndiaye. bala ngaa nuyu Lay Ndiaye ñaata komba nga def arène. arène def na trise komba ñaata victoire. dix. waaw ngay nuyu Lay Ndiaye. dama koy nuyu. du rafetlu lii. maanaam lii bu ko defee xaaru ci reset maanaam bëgg a jàppale mbër yi loolu kese moo ko ci dugal muy sonn ngir jàmm gën lay njaay mii di sonn ngir jàmm gën loo xamante ne man dama ci teg sama bët suñu jumaa jee barki démboo njaay morgue bi moom waxuma ko billaay wallaay waxuma ko imam ma ko wax nem nem nem morgue bii moo ko tabax moo ko climatisé yu baax yooyu muy def ci réew ci ci dëkk bi ay moto pompe gasoil di ko jël di ko def si dëkk bi yooyu tamit nañu te moom. yéen mbaaru da bëgg a sot kéwél. Fata mbaa li mu def wóor. Fata baar xàlla chaque jour ginaar ginaar la may tegal fii loolu daal laa xam. lii de tëgg sa mbër di ko joxe ginaar. ah am looloo fi la nag de. <laughs> ah boo ñëwee ci ba ngay taxaw nag. ah loolu moom tribune ya ngay moo am solo nag. loolu am solo moom mi ngi nii am am na promoteur am. <laughs> loolu dina ko leeral mu kuy promoteur am. ah Fallou Ndiaye Assane Ndiaye. bawal bawal yëpp ah <laughs> Kewel <laughs> Kewel maa ngi lay ziar. waaw auzubillahi min saytaan rajim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi maa ngi sant sama ñaari waajur di sant ñi toog ci saal bi yëpp di sant Seydou Fall mi di sant sama minaseer saal ba waa di gërëm promoteur bi nan waaw Lay Ndiaye waaw xëy na tey laa mos a gisanteeg moom mais maa ngi koy sant di ko gërëm comme bi mu tegee kombaa bi. sama digganteeg Sunjata quoi. dégg nga Sunjata li mu wax doole na moo ko ëpp moo dàq bëri moo ëpp fit moo gën a doon gune te ne na paa yi su mënaan sa wax ne ñoom la daan yow paa de laa la daan paa yooyu. yooyu yëpp ay détails la. moo gën a doon gune man ak moom ku gën a féete xale yàlla na la yàlla may ndam barke Seydina Mohamed hmm. waaw. non loolu lépp ay détails la ay ëpp dooleeg dàqa xeex ak dàqa bëri yooyu yëpp si lamb ji lay leer man licence naa ne bu may ñëw si lamb ji samay armes yëpp laay andiwaale daal waaw dinaa andi bëre dinaa andi xeex dina andi doole dina andi fit. su am na looy moytu man du ma moytu dara ci kenn même bu dul si njata sax man noonu laay bëree samay combat du ma moytu may bëre ñëw daan wala ma ñëw bëre daanu mais amuma lu may moytu. combat bi fan la mën a yóbbu Kewel ah comme yeneen combat yi fi mu mën a yóbbu rek parce que mbër moo jël mu ne da ko bëgg a daan moom mi ma jël dal maa bëgg a daan man dama ko bëgg a daan waaw xëy ko daanee bu dee ñaari point wala benn point sax dina ma yóbbu fenn. mais dégg nga démb li mu wax nee na mbër yi nekk bawal tafaatin booy bawal bokk nga ci ñi nga xam ne tey ñoom lañ ci gën a yaakaar loolu boo ko déggee journaliste kuy seetlu wax ko loolu lu mu lay ban lan la war a yokk laay bugg a laaj. waaw da lay yokk jom rek boo doon def benn mu yokk la ngay def ñaar waaw parce que man boo xoolee fi ma jaar dafa métti xëy na bëri na ma ñoo xam ne nii sax ñoo mag quoi mais bëriwut waaw bëri na ma ak Aliou Mané bëri na ma ak Boy Niang bëri na ma ak Bey waaw ñooñu moom ñu ñoo mag ci lam mais à part ça ñooñu yëpp samay morom laa bëreel quoi te ñu ci ëpp ñëpp dama leen a daan menam mot ja rek moo a si daan waaw su njot ne na am nga promoteur na ndax moom promoteur bi ñëw dëkk ne da koy nga promoteur muy Fallou Ndiaye ak Assane Ndiaye am nga promoteur non amul problème promoteur bi xoolal yow am ngay promoteur. mais am naa ñul may tegal parce que kii muy nii tegal ma sama promoteur la waaw man promoteur yëpp laa fi neel. mais est-ce que lii wóor na nii nii kii ñu jox ginaar jox ko xaalis jox ko sa avance nga ñëw jël ko fiiruñ la ba jàpp la yow. non non man kenn mënuma fiir promoteur bi xëy na si ñetta mberam la mais amul leen loo xamante nii dinaa ko ko si jàppal wala ma ko si moytu fu mu ma woo signature dinaa dem. bul ma woon biir këram signature sa këram kay nga toog nii. Ah, voilà kon jeex na jeex na kon. aw ma leen lu ma ciy moytu. barki sëñ Touba. kon looy waa di leen wax ne leen Kewel am na combat. waa di ñaan promoteur bi rek xëy na li may ñaan moom mii xëy na moom lay ñaan combat bi ñu teel ko bëre mën a seetiwaat leneen ñun ñaar <coughs> waaw parce que ñun dañoo war di bëre ñaar yoon quoi. waaw lil ma dal saison bi passé xam nga ñu ngi ñaan yàlla daal beneen yoon xam promoteur yi daal ñu ngi koy ñaan daal mu teel ñoo tàqale ñu bëre ku ñu seeti leneen. na solo léegi nag ki waral bis baa ngi nii yàgg maar damay bañ gars yi jaawale ko comme ni ma ko doon waxee. arène nationale moo fa njëkk a tëgg làmb loolu la suñu borom def dogal te daaw la ñëw ci làmb lay ñu ngi lay ziar di la ñaanal di ko saaxu ci yaw dégg nga nit ñi li ñu wax. waaw du mën a ñàkk. Ibrahima Ndiaye sa baay gurndey xali lay bëgg joobe Sénégal teelu leen gan gaa ngoog lay njaay Baba Garage production lay bëgg jiin tey ma di lii joobe réew mi bàkk naa ko lay ñu ngi lay nuyu di la ziar dégg waa saal bi yëpp wax dégg mbër yi wax yaa jëkk tëgg arène national làmb nga ñëw ren ñu yaakaaroon sax lay day bàyyi lay ñëwaat indi beneen combat boo xam ne nii bu askanu làmb doon xaar la muy diggante sunjata ak ki nga xam ne mooy kéwél bu bawal auzu billahi min asheytaan rajim auzu billahi min al kawfil faq auzu billahi min al naari wa min sharri kafaari man xadda bi jabaar xisbillahi wa li rasulihi wa li muminina Babacar ñu ngi leen di nuyu di leen euh, di nuyu assistance bi yëpp sa naataangoo yi nga ndal euh, manager yi muy sa ak sa caméraman euh, di nuyu sawru di nuyu suñu daal ba di nuyu mbër yi di nuyu kéwal kéwal di ko ndokkal parce que aussi mënoon na compliquer lii aussi dañ koy félicité parce que aussi c'est vrai que suñu Ndiatta suñu mbër la ñoo ñoo ñoo ñoo dëkk mais moom aussi mën na nekk suñu mbër parce que aussi suñu Ndiatta du bëre moom rek mu bëre kenn lu ma jege-jege di nuyu aussi yeneen ñaari mbër yi war a bëre spécial bi Mam Mor ak Sidi Diamagan donc mbër boo xamante ne bii ak Mbaye Gueye Faye mbër bu ñu fàttante coloré mën naa wax sama mbër nga loolu moom euh, am na parce que Aliou Mané barki démb la may woo naa man kan laa koy joxat man ne ko sànnal ku la neex nga woo ma donc tam mënoon naa wax ne bu fekkoon damay wutal suñu jota yoon kon bu ma du ma ko jël Keweul aussi pareil di dalal seen xel rek ni leen ñun amuñu problème mu date parce que aussi suñu làmb sukkandikuwul ci ay sponsor wala di xaar kenn décider pour ñu tëgg ko bu saison bi ubbee am na première journée buy buy daw octobre wala novembre au plus tard premier janvier làmb ji dina am te mbër bu ci bëggaat adversaire bu bu suñu bëggee ñoom ñaar kenn ku ci ne mën na joxaat combat avant fin d'année waaw loolu loo muy deuxième combat donc loolu aussi ñu ngi leen koy promettre di wax ni aussi defuñu làmb ji métier commune bi dafa laaj c'est-à-dire mënu nekk ci commune nekk fa une personne ressource te doo jàpp ci li nit ñi nekk làmb ji facteur de développement la ñun bu nii rek lañ mënoon def pour jàppale mbër yi parce que ñu mm, mbër nekk ci commune bi dañu bëri ak feneen ak feneen même Pape Sène aussi bi njëkk ba rek Sunjata bi ma koy dama ko ne soo bëggaaloon combat ko parce que man loolu noonu lañu noonu la ñuy doxee mbër xam soo ma diggante bu yàqoo yow yaa ko yàq parce que aussi tamit man li ma la wax li ma mën daal naa ko wax waaw ñoom ñaar ñi bu ñu bëree ba pare ku ci bëreetul ci ci yow la mais man du du dépendre ci man mais léegi lu ne ci ginnaawam euh, sëñ Tuubaa ak yàlla ñoo nekk sama sama ginnaaw loolu sëñ Bamba de lu mu am moom defe naa liggéeyal yonent ba ak yàlla boroom boo ko ko may ku mu sa ginnaaw di war nga am dëgër laay. wax dëgg yàlla nag amuñu lu ñu ragal ndaxte li ñuy def euh, maanaam li li tëgg combat yi maanaam du lu ñu lebi du lu ñu maanaam yàlla jagle nañu ko. soo tëgg làmb parti ci. ah kay làmb ji la ñaar li ma tëgg amu ci xaalis mais problème bi mooy am na euh, sama xaalis boo xam ne làmb jee taxoon ma ma dugal ko ci mais bu làmb ji paree aw ci bor rek baax na. waaw amu ci mais à part lii fas nga yéene tëggaat yeneen combat yu ëpp doole yi parce que ñu ngi gis ay Ama ay Modou Lo ay Balla Gaye ay Bombardier ay Tapha consort bu dee dëgg nga bëgg a dégg man mbëri ñoo ma intéressé waaw xam lu tax mooy du ma jël xaay cent million di ko jox benn mbër muy fanaana moom mën naa jël cinq wala di millions jox ko mbër topp mën naa jàppale mbër ba mu yegg cinq dix millions parce que aussi tamit da nga da nga dafa logique la làmb rek du activité fi mu toll nii maa ngi fi morgue yaa ngi morgue booy ñu ngi koy wax léegi am na yeneen mbir mbir yoo xam ne dañ nekk ci commune bi yu nit ñi war a def hôpital baa ngi fi am na yeneen yoo xam ne war nañ ci mën a jàpp boo jëlee benn ngoor nga jox benn mbër 100 millions ah, euh, ñu ngi leen jox rendez bu saison bi bu saison bi ubbee incha allah ñu ñu woo leen ñu jàppale mbër yi ñu ubbi saison bi ci jàmm incha allah di ñaanal CNG jàmm di ñaanal réew mi nawet bi euh, mu doon nawet bu bu barkeel Sénégal gis gis ci boppam réew mi yàlla def fi jàmm mbër yi aussi muy Sunjata muy Kéwel yàlla defal leen jàmm ba bu bëree bi incha allah am talu ñu jox leen yeneen ko combat